député Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñii euh, soxna si honorable député di nuyu Madiaw Faye bi nga xam ne itam euh, moo jiite CPS fii ak euh, nuyu Serigne Ahmadou Lo Serigne Diop itam yi borom kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy wa magi Pastef soxna Fatma député ñu lay cher di nuyu waa Magui Pastef ci jotaay yi ngeen amoon ci nii ngeen di def ndax borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne maanaam mag ñett mbir mu bokk rek dina yaakaaru ñett mbir moom bokk dina yaakaaru tey dina dalal xel waaye bu ngeen déggee scénarisation bi kii dal la léegi rek mu ne maanaam Macky Sall président Ousmane Sonko di wax ne Macky Sall ba ñu ko fekkee mu toog di wax ni nañ ko defal intervention ci Sonko soxna si di wax ni nguur yàlla na ko bu jeexee itam ñu loolu bu doon borom a bi dañuy wax ne loolu muxtasar la muxtasar am dañuy wax homme d'état homme d'état day am dañuy wax mooy moom Sonko bu toogoon wax ci situation yooyu intervention yi ko fekk ci brigade de ngir moom bu génnee mu tenir discours sàngam ngir dëkk bi nekkaat à l'aise. te moom moo ko doon sax moom. ni mu ko sàkkoo moom Macky Sall ba jël ay kilifay diine jóg dem di wax ak moom di wax ak moom pour moom mu def discours yàq coow te man defe naa ku ma la sa topp euh, moom ay xalaat man bu doon a a nit problème ci yenn situation yi. ma ma recevoir yoo xam ne su ma ko recevoir après problème laa ciy jëlee du ma ko sax yonent bi dafa waxoon ne tout d'abord rek seen bopp balaa dara xew seen bopp balaa dara xew seen bopp mooy man lam yaxrif nafsahu laa yaxrif rabbahu mu ne ko xamul moom li tax yàlla sax xam ni man yonent li may màgg-màgg xëy na du yàlla sàkkee la la sàkkee yow mais fekk xamagoo loolu nee pour nga xam yàlla mi la bind da du yomb da ngay dégg Serigne Cheikh Tidiane si Al di wax ne ku yëg maanaam loxo yàlla yu màgg nee na ni mu toll nee na muy sàkk doomu aadama di jël ay misaal di wax na dañu koo tàmbalee ba ci ilaa xaraarin makiin fa xaddar naa fa nixmal nekk doomu aadama imma saakiran wa ne waxtu wu ne ku wax ne ne ku sant ku xam loolu rek mais di nga xam dëgg mission bi la yàlla sant mission bi la yàlla sant nag mooy jotaay bi li muy rëy rëy ak yi ñu koy defee ci biir réew mi ak réew alal yeeg coono yi nit ñi def lépp lu dara boo ko di début à la fin lenn rek la muy defarug Sénégal defarug Sénégal nag am nañu ñor am nañu ñor waaye ñi ñor ba mu leen jóg ñu xëy ko gont su defaroo ci ëppalee ñi mu ndax daa am na xam li tax defarug Sénégal ñoru leen mooy ñoom seen defar ak bopp daf leen a ñor ndax damay wax Sénégal bu defaroo am na ñoo xam ne seen defaru bu Sénégal ñoom seen ak defaru ñoom ci yi ñu toll ñoom ak ni defaroo ñoom raison bi dikkoon di leen defar itam mënu leen a defar defaree wu toll ñoom defaruñ defar ñoom am na koo xam ne itam intérêt yi muy xëy di ko jot par jour ci ay bis ci ay weer ni mu toll bu Sénégal defar woon itam dana defar woon ci biir defarug Sénégal waaye lu toll noonu mun moom mënu ko loolu nag muy eh, li ngeen wax léegi ci CPS bii muy CPS bu Mbàkke xale yi loolu président Sonko moom moo ko gën a xam moo ko gën yëg ndax mitin bi ñu ko njëkk autorisé Dakar ci Kër Massar bu defal ko bopp ba mu ci jógee Ziguinchor a ngi fi Kaasam Ziguinchor a ngi fi Kaolack mi ngi fi mboolem région yëpp ñu fi te moom nee na Touba la koy defe si parce que gis na détermination bi waa Touba am ci procès détermination boobu damay faral di wax ñu ko sante kenn ku dul Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax Serigne Touba ci benn niveau la ñu fekkoon ñun ñëpp benn niveau mooy man faxala bi nafsihi yoxte mi maa sa maanaam lu ko nit di xëy ngir boppam di am ngir boppam nit di xëy ngir boppam di ñàkk am ngir boppam di sëñ di kay ñu wax dañu wax li ñuy wax intérêt général mooy bala ngaa xalaat sa bopp xalaat kenn mooy li doon wax ne saxaaba yi ci waxam yent bi yaram na leen yar bañ egg ci mu jox leen ñamu guddi jël benn morsof yàpp rek benn morsof yàpp maam cere la leen jox jël yàpp teg ca kaw jël mbooloo da jox leen ko ñuy lekk di ko làmb ku ko làmb ku da yi ba ma ba cere ja jeex yàpp eh, maam doogu yàpp wa des nga xam ne kenn ku ne yéene na ko sa morom ba far yéene gi ñu ko yéene seen morom ñoom ñëpp kenn ku ne kenn ku ne bàyyi ko sa morom ba bañ jógee kenn ku ne def nga ne sa morom yëkkati sa yéen demee xoolanta boobu mooy li mu yëkkati woon fii nag euh, département bu Mbacké wala ci mouridisme mu nekk maanaam euh, dafa wuute yeneen turu xaaj di ci benn boo boo dee xool maa yeneen tarixa tarixa yenn yi ñoom ñaare boo fa nekkee leader di wax wala nga nekk fa koo fa mën a doon ñoom duñ la jaxasee ak kilifa yi diine yooyu ci misaal demal Tiwaawan di début à la ñi fay politique wuute ak état bi xalaat mosu leen a gis ku dëkk Tiwaawan di def ay ay ay ay ay pexe ngeen jaxase kilifa yi diine ya ak leader politique boobu mosu koo gis. bu ngeen demee fee ci Kaolack mosu leen a gis politique bi maanaam ñu jël leader ba fa nekk wuute nguur gi xalaat ñu ko fi xam di ko jaxasee kilifa diine. fu ngeen dem ci maanaam ëttu këru diine yi de Sénégal loolu ngeen ko fa gis bu dee fii Touba ngeen ko fa gis bu ngeen ko gisee barki dem boo jaay dégg ñu ne Cheikh suñu Cheikh Thioro honorable député na nangam nee na nangam sëñ Modou nee na nangam wax ci sëñ Touba sëñ Diouf nee na na nangam bari na waxtu ne rek problème boobu la ñuy njëkk collé motif moo tax bu ngeen gisee politique bi ci raison ndaw ji ma naaw leen mooy fexe ngeen ba réussir total taalib bi yëpp ngeen rassemble leen ci gone yi ci amu leen problème ak sëriñ te bis bu set Macky Sall moom moo gën a bëgg loolu moom moo gën a bëgg ngeen am problème ak sëriñ ay am ñoo gën a a bëgg gën a bëgg ngeen wax na combat bi Macky Sall na mu rek la mooy dafa defoon ne moom gendarmerie ak ak euh, gendarmerie ak police am ak ay services de renseignement généraux ak xaalisam doy na ko sëkk ci ku bëgg duma duma la moom loolu la yaakaar ba mu ko xeexee xam ne nii mënu ko xeex ko. mu dem jëli sëriñ si ngir ñu xeexal ko ko nenn rek la mooy dégg ngeen barki dem ñu ne ku ñuy wax Saabir Massour dugal na fi vingt millions d'euros vingt millions d'euros te wax naa fi am na ay télévision yoo xam ne woo naa leen ne leen yéen damaa gis bu ñu waxalee Sëñ Tuubaa lu dul noonu ngeen def ay plateau di démentir ki def loolu léegi nag lii danaa leen ko xam naa sax du ngeen ko def moom du ngeen ko def loolu laa leen wax xam naa du ngeen ko def du ngeen ko def cest nañ dugal maanaam fukki milliards ak ñaar di def ay financement yoo xam ni maanaam financé ay nit la ngir ñu xax ci benn projet te ñee ngeen ci kilifa yi diin lañ ko jox léegi ngeen télévision yooyu daan def bu ab sandarma su kolee sëñ Modou Kara ñu dàq ko ngeen organiser wax suñu waxee fee bu benn kenn bu kenn wax ba ngeen organiser wax am na ko tuumaal ñëwootu a fukki milliards ak ñaar jox nañ ngir parti bu ñuy wax Pastef ñooñu lañ bëgg a jàppale parce que dinaa leen ko yëgal pour ngeen xam ne seen rôle du ngeen ko def nag parce bu ngeen ko defee du neex Macky Sall ba mu ko defee dana favorable ci Ousmane Sonko da ngeen koy setal maanaam bu ngeen seetalee ne njabootu Sëñ Tuubaa ngeen bëgg a jiiñ ne dañoo jot ay financement loolu amul ma ne loolu du ngeen ko def te mooy li ngeen war a def du ngeen ko def gaa waaye pour ngeen xam ne yéen la ngeen daan def ci ay plateau di organiser di wax ni maanaam ñun dañuy xeex ngir ku bëgg a tuumaal Sëñ Tuubaa ak njabootam da ngeen ko daan dégg ñu poste ay Facebook ak dem ci YouTube yi di wax naan ku tudd Sëñ Tuubaa ku tudd njabootu Sëñ Tuubaa bi léegi si am na benn journaliste bu toog publiquement wax na Touba xaalis ñaar fukki milliards ak ñaar dugg fa te kilifa yi diine lañ ba tey jii ne naa leen du ngeen gis genn kilifa ak diine bu démentir lool bu ngeen gis benn kilifa ak diine bu ko démentir c'est-à-dire mooy ana lu gën a garaaw yonent bi da daana ko wax daana wax ne man day buñ ma tuumaalee ma miin daana ko wax man ku ma tuumaal ma miin ku ne ma yaa ne nangam te waxuma nangam naa lu wax na sax ku dem ba tuumaal ma man fenal ma fa léegi te boobu ba maqaxadu hoo mi na naar mu ne dem ba nen na nga na nga na mën a wat yàlla ne moom sawara dafa fa ngay dëkk kon dèjà kooku moom du fanaxandoo wala muy yendoo loo xam ni lu dul dëgg la ngir bëgg lu neex ne war bañ neex bu daa buy mer daa mer ci mbir moo xam ne yàlla mu mer ko saxam yàlla da gërëm xam ne yàlla da ko gërëm mu xëy ko gërëm moo gaay yàlla léegi nag douze milliards yooyu dugg Touba te ba tey ji déggu leen benn déclaration officielle bu génn officielle bi war na ne suñ ko defee rek dañuy jàpp ne Sonko la ñuy jàppale suñ ko defee jàpp ne la ñuy satal te moo lu ko gën farata amul parce que yéen barki Demba Ndiaye tabax ngeen fii ay benn université tabax ngeen tabax ne léegi jox nañ leen fukki milliards jooju Touba kooku Touba waa Touba te nga ne nga siite ne ay lañ koy wax wax dëgg yàlla nag bu dee yéen ne maanaam ormay Touba leen ñor te mu dëgg ci yéen wax dëgg war ngeen ci wax. waaw léegi loolu nag mooy xool rek mooy waxuñu waxuñu dëgg liñ ne ma ormay Tuubaa leen waxuñu ko ñor fekk ormay boppam moo ko ñor moo ko ñor cest à ku laal dara ci ay àq mag yàlla fa mu jóg waaye ku laal yàlla fi Sëñ Tuubaa man de dama leen wax lu leer am na benn journal bu bindoon ci Sëñ Tuubaa ne li mu sol nangam la sama laa ma ju tudd sama laa ma ju tudd ay sëriñ Sëriñ Tuubaa jóg ma ne di ko manifesté wu sëriñ Sëriñ Tuubaa moo financé ay nit na leen contre carré ko France tàkk France ak journal bi def loolu di dagg Sëriñ Tuubaa pour ngeen xam ni nit ñoo nit ñi amuñ a amuñ problème ak di défendre Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa du lu ñuy défendre loolu ñu moom défendre na boppam moom défendre na boppam ci lépp parce que défendre sa bopp wiisu nga dund soixante quinze ans ba mu jeex bi nga gën a adduna bi ba di nga wanee nit gannaaw nit toppaloo ñaar fukk bi ko wane ab bi nga ba ni nga wane nit ginnaaw maanaam nit waxu nga wax kàddu delloo ko wala mu wax delloo la te loo mas a jëflanteeg nit ñi kàddu yi def ko ko nag waxee woon ba pare nga jëf-jëf ci lépp rafet nga bind bàyyi ko kooku nit loolu ko nit war a défendre wala nga doon ko koy layal parce que défendre na boppam layal na boppam boo xam ne man défendre naa sama bopp layal naa sama bopp waxoon na it maanaam waxtu wu ne moo ne ndaw na na ca kanam di taxawal mbir yent bi de am ki ko njëkk jiital ajjuma ajjuma nga xam ne mooy li nga farataal ci xeetu Mustafa alayhi salaam ba pare yonent bi jamono bi koy def moo fekkee ko yonent bi ajjuma ay sax xamam ko jëkk que bi ñu koy farataal koo da koo santaane dem leen ngeen Mus'ab ibn Umayr sa farataal lañ julli boobu moo nekk premier gouverneur am te boobu Mus'ab mi nga am fukki at ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti weer boobu Mus'ab ibn fukki at ak ak juróom weer yonent bi def ko def ko gouverneur def ko li ñuy envoyé spécial jiitaloo koy juma ne ko jiital na xeet léegi kooku li ngay comprendre mooy doon ndaw ak loo ndawe ndawe sa yitte moom war naa màgg doon ndaw ak loo ndawe ndawe sa yitte war naa màgg sa yitte war naa màgg comme nii ngeen di doxee lii nag mooy seen ndaje mii ak Pastef mii chaque jour bu ngeen defee ne su ngeen defee ne maanaam loo xam ne la Macky Sall képp mooy adversaire principal déedéet Macky Sall maanaam procès bi ñu koy contre su doon oto moteur bi tubaab yi la Macky Sall nag moo direction bi di dawal entretien bi leen ci chef religieux yi la lenn ci chef religieux yi que lenn chef religieux yi la mooy dama koy faral di ko waxaat maanaam yow ngay dukki di yor ab passeport diplomatique di ab sëriñ te yow amoo yenn yenn loi étatiquement lu la permettre nga am passeport diplomatique kooku boo ko yëgee boo ko yëgul parce que ban da passeport diplomatique boobu lu mu la may rek la la wóor na ci riba nga koy lekk waaw lu mu la man a may sëriñ bu mu mën a doon yor passeport diplomatique du tukki amul droit yor passeport diplomatique waaw te noonu ñu lay joxe passeport diplomatique ñu lay joxe oto joxe la koy tool joxe la joxe la permettre la sax koo ko bëgg a amal a am amal léegi nag situation moo tax nit ñi di am problème yu ñu am moo tax nit ñi bu ñu feebaree du ñemee dem hôpital parce que xam nañ ne feebar na te bu ñu demee hôpital gis seen feebar waaye après du ñu am lu ñu fajoo après du ñu am lu fajoo parce que du ñu am lu fajoo mooy système bi ni ñu tëggee day gis koo xam ne waxuma la am lu mu fajoo waaye bu bëggee faju képp mu wóor ko ne bopp moom doo ngay métti boppam laa wax de moo koy métti bu demee ci case centrale santé bi ñu faj ko day jël avion jet privé wala mu jël avion première classe wala wala wala dem ci hôpital yi gën a seer ca France te lépp état moo koy gàtt te lépp état koy gàtt te moom jamono bi ñu def loolu moom moom en tant que moom yor na alal ju ko mën a faj ba mu wér alal ju a na France. ba mu demee gis ngeen hôtel ba mu dal hôtel ba mu dal ay suite la fa la fa reseer ay suite bu te kooku lañ ne moom moom lañ bëgg kooku lañ ne moom la ñuy mooy laaj réew mooy li ma dégg leader politique wax ne Macky Sall daal daal say ba tax ma la fa ne waaw loolu mënta te Macky Sall koy waxee li muy doy doy waar fi ne moo gën a am ba li muy doy doy fi ne Macky Sall mi ngeen xëy ba mu moom Amadou Ba seul benn Sénégal bu ngeen xam mu contrôler média bu Sénégal contrôler journaux yi contrôler contrôler ba contrôler waale lenn ci chef religieux yi su jëlee état bi di ngeen bëgg nit ku wax te du ngeen gis ku wax di ngeen bëgg ko wax parce que wax na yow jëlu ko état yow kii yow jëlu ko état te yow fexe nga ba tey jii benn article képp boo ko defoon ci YouTube bi balaa deux heures de temps ñu dindi boo ko defoon ci moom balaa une heure de temps ñu dindi boo ci Facebook balaa une heure de temps ñu yi amul boo ci am bu ñu la xamee sax ci attaque yooyu def ci Amadou Ba yow dootoo ci wax yow jaan waaw dootoo ci wax jaan léegi ku mel noonu moom nan la mën a dikkee taxaw ne léegi ñun nañ ko jox suñu réew ñun bu ñu doon war a doon moom dañu ko lay nag mu des comme président président Sonko man de ba fi ma toog wax ak yéen tey jii laa gën a am confiance ne moom day dem présidentielle te day gagné man tey tey tey.